mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya fanweer ak benn ci suuratul hajj ci suñu borom di waxe xunafaa lillahi gayra mushrikina bi naam xunafaa lillahi gayra mushrikina bi naam kon alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi santaat suñu boroom ci mi ñi dëppale ñu daje ci ab néegam di jàng ab téeréem loolu nga xam ni moom mooy aar xeet bi sàmm seen ngëm moom la borom bi di wax naan kayfa takfuruuna billah wa antum tutla alaykum ayaatu wa fiikum rasulu mooy julit ñi fuñ mën a toll dañu soxla ñu leen di fàttali aaya yi borom bi di leen fàttali sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tey jii mooy ñeenteelu fan ca la nga xam ne mooy jumaada saaniya sunu maam yi di ko wax maamu koor mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci janvier deux mille vingt ñu ngi ñaanal suñu boroom it ñu ngi ñaan ci suñu boroom di ñaanal ñi nga xam ni li ñuy def fii ñi ngi koy toxal ci ñoo xam ni ëpp nañ ay yooni yooni yoon ña nga xam ni ñoo koy déglu gannaaw ba ak ña nga xam ne nii ñoo koy seetaan mbokk yooyu nga xam ni ñoo jiite Islam TV ñi ngi génne tey rek ay matériel yu bees yu ñu jot yoo xam ne dana mën a tax ba daje yi ñuy dem ñu koy mën a def en direct fi mu toll nii ñi nga xam ne am nañ ay câble ci parcelle golf géejawaay ñoom ñëpp ñu ngi mën a jàpp Islam TV ci seeni télévision waaye nag dañ ko commencé it di ko def en direct xanaa di fàttali rek ni Islam TV yéen ñi yéen a ko moom mooy ñoo xam ne dañoo am yëg-yëg ci ne télévision yi fi nekk day bari na lool waaye nag jafe na nga gis te bu mucc ayib ci wax loo xame ni nii dana jeexital ci jukko wala ci pas-pas ñoom ñu bëgg ut télé boo xam ni dañuy fexe ba lépp lu fay jaar daañ ko segg ba xam ne lii day njàngalem yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam ña koy taxawu ak ña leen koy jàppale yal na yàlla boole leen nangul kon incha allah mi ngi noonu ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane jël suñu bind bu njëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام
وقست قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون
barakallahu fikum mbokk suñu boroom tere woon nañu ca àllarba jee wees ne nañ moytu lépp loo xam ni ay xërëm la moytu bépp wax boo xam ni waxi duural la xunafaa lillah yéen ñépp ngeen jeng ñeel yàlla mooy jeng gépp ak bokkaale jublu nag ñeel yàlla xayra mushrikiina bi bañ a doon ñu koy bokkaaleel wa man yushrik billah koo xam ne dafa bokkaaleeg yàlla fa ka annama xarra min assamaa dafa mel ne ku rote jóge kaw asamaan fa taxtafuhu tayr mu sëxatoo ko picc ya ku nekk ñëw këf sa wàll aw taxwi bihi riix walla boog mu daal di koy waddal ngelaw la fi makaanin saxiiq ci place boo xam ni bu sori bu xóot la zalika loolu mooy la nekk wa man yuazim sha'air allah koo xam ne dafa màggal màndarga yàlla ya fa innaha min taqwa alqulub lool day dana nekk ci ragal yàlla guy nekk ci xol ya jur googee lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma dana leen ca ñeel ay njëriñ ba ci dig boo xam ne tudd nañ ko summa maxilluha ila al bayt al atiq gannaaw ba nag place ba muy dagga nañu rey ko fa mooy ca néeg ba nga xam ne dañ koo goreel wa li kulli ummatin ja'alna mansaka mboolem xeet bu mu mën a doon def nañ ñeel ko ak feet li yazkuru sma allahi ala ma razaqahum min bahimati al an'am ngiree ñuy tudd turu yàlla ca li leen yàlla wërsëgal ca bàyyuma ca jurga bokk ca bàyyuma ya bahima mooy jurga al an'am nag mooy xar nag bay gilene fa ilahukum ilahun wahid seen borom yàlla day benn yàlla kese la fa lahu aslimu moom dong la ngeen ko jébbalul wa bashiril muxbitin ca nga bégal ña nga xam ni dañuy toroxlu mooy alxaashiin ñuy toroxlul yàlla boole ko màggal ko allazina ida zukira allahu wajilat qulubuhum ñooñu nga xam ne bu ñu tuddee yàlla mu daal di yëngu seen xol ya wa saabirina ala ma asaabahum ak ñi nga xam ne dañuy muñ ca nattu yi leen di dal wal muqiimi salaa ak ñi nga xam ne dañuy taxawal julli wa mimma razaqnahum yunfiquun ca lañ leen wërsëgal dañ cay nekk di ca dépensé mi ngi noonu mbokk suñu boroom nee na ngallawaayi nañ ko jéng jëm ci moom looloo tax saar bi mooy suuratul hajj suñu boroom lu ci bari mi ngi ñuy wax nañu war a comporté woo ci aj ga xunafa mooy jéng jëm ci yàlla looloo tax waa ji aj makka bokk na bu armalee lu muy wax labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa nicmata laka walmulk la sharika laka e yàlla wuy si naa la te maa ngi sax di la wuy si mi ngi noonu yàlla wuy si naa la mboolem xéewal yi mboolem cant yi mboolem ngóor gi ñeel na la amul kenn koo ko bokkaaleel lii la bokk ujaaj bi di wax chinois ba américain ba pël ba naar ba muy wane ne ñun ñëpp dañuy war a jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg dara suñu boroom nag ne koo xam ne wéetulul boroomam dafa am leneen lu muy jaamu nee na mi ngi mel ni ki jóge woon kaw asamaan di daanu tan yi seen ko ceyli yaag eegil ya ku nekk jëkkante ko ku ne am loo ca dagg yóbbu walla bu dul looloo ngelaw lu foor boo ko jële ca kaw montagne daal di koy daaneel mu dem ca place boo xam ni mënul fexe ba génneeti fa boppam loolu it mbokk lan la ñuy jàngal kiy wéetal yàlla moom dong mooy jaamu lenn moo tax ñu tudde leen mooy al muwahidun ñiy sellal wéetal amma keneen ko jaamu lu dul yàlla fokk nga am yoo yaakaar yoo bare bare bari moom la yusufa alayhi salaam waxoon ñam nekkaloon ca kaso ba a arbaabun mutafarriquun xayrun amillahu alwaahidul qahhaar ndax ki yaakaar lu bari dana yem ak ki yaakaar yàllay kese yow boo amul tawxiid yaa ngi am nit koo yaakaar yaa ngi yaakaari malaaka yaa ngi yaakaari xërëm yaa ngi yaakaar ragal ragal amma julit moom mi nga xam ne dafa gëm boroomam yooyu yëpp du ko ci fekk borom boobu nag bi mu waxee lii ba pare mu ne xam leen ni lii di sha'air allah jàngoon nañu alarba xurumatillah sha'air allah mooy mandarga yi yàlla tëral suñu borom da koo soob mu samp benn kaaba muy nekk drapeau julit ñi ci kaw suuf ñëpp di leen boole mi ngi noonu mu daal di tëral safa ak marwa tëral jamaraat yi tëral muna mina tëral arafat tëral muzdalifa yi mooy sha'air allah suñu borom nee ne ki ka màggal day day wane ni ak ragal yàlla mi ngi ci biir xolam te mbokk julit loolu la julit war a bàyyi xel mooy ak makka la ñu fay def sunu xel day mën na am mënu koo comprendre waaye yàlla ko digle jeex na loolu nag mu safaanoog la nga xam ne dañ koy dégg ci Sénégal mbokku Sénégal ñun ñooy ña nga xam ne ñooy défier yàlla te mooy yàlla dafa juum ci li ñuy tërale ay jaamam ndax Sénégal la ñu dégg kilifa diine ay junni junni wër ko mu naan man ramyul jimaar je suis contre dem Makka di sànni ay jamra nit ñi de mais loolu man je suis contre ay waaye sëñ bi soit contre yaa xam waaye ñun jullit ñi ñun gëm nañ ne ramyul jimaar min sha'airillah te màggal gañ koy def def ndigalul yàlla dee gañ cay dee fa lillahi alhamdu ak ne xoon ñu dee ci ramyul jimaar mi nga noonu loolu kon la jullit war a gëm borom boobu nag jàll wa ala ne lu yàlla màggal ku ko màggal ragal yàlla dafa nekk ci yow ci at lay waxee moo tax ma tudd la ma leen tuddal waaye sha'air allah mooy lépp lu yàlla subhanahu wa taala samp borom bi nag ne su ngeen jëlee seen jur gi di ko yóbbu ca kaaba ga am na njëriñ ñu leen ciy ñeel ba baa ngeen yegg fa ngeen koy reyee te loolu la ko waraloon yéeféeri arab ya buñ daan yóbbu ak jur ca kaaba ga duñ ko war duñ ko rat suñu borom nag ni déedéet fii yëg yëggagu leen fañ koy war a reye man ngeen koo jëfandikoo ni nu mu leen neexe ngeen yóbbu ko ci néeg boobu nga xam ne dañ koo goreel muy kaaba ga ca la borom bi nag waxeete ne ni bépp xeet bu fi mës a jaar utal naa ko ay feet yoo xam ne dañ cey tudd yàlla ca la nga xam ne mooy jur ga ma leen wërsëgal loole ñun jullit benn fan lañ ci am fan boobu mooy bisu tabaski lañu yàlla yoonal ñu jël ay xar di ko rey xatta korite feet la ci ñun waaye jullit ñi buñ dëppoo woon bu feer korite jotee ñoom ñépp ñu jënd ay xar yeew dañ naan ñii ñi ngi def bid'a amma tabaski suñu borom yàlla yoonal na ko ñu tudd turu yàlla yi ca lam ñu wërsëgal borom bi di ñu xamal ni suñu borom benn la ay xeet yi fi jaaroon yépp benn yàlla lañ doon jaamu ñu nit lañu war mooy ñu jaamu benn yàlla yàlla boobu nuñ koy jaamoo mooy dañ koy jébbalul falahu aslimu dañ koy jébbalul mbokk lan mooy jébbalu jébbalu mooy nga jox sa bopp sa boroom daa di nangul ko ci li nga xam ak li nga xamul li nga comprendre ak li nga comprendreul li la neex ak li la neexul loolu mbokk mi ngi noonu bokk na ci loolu aj makka mbokk xoolal aj makka jullit bi yow boo demee le général d'armée nan lay def mooy day dem summi tenue général bi daal di waddu daal di làmbaayu toroxlu ci kanamu yàlla lu tax muy lii la yàlla santaane jeex na ndax aj yépp la ko def déedéet ba bisu fukkeel ba suñu borom na ko léegi mën nga ko dindi mu dindi ko solaat tenue bu ko neex lii mooy jibbalul yàlla waaye ba tey Moussa Fanoog di xew Sénégal Sénégal li ñuy gis kilifa diina gu mag gu taxaw adduna yépp di ko dégg mu ne moom aj màkk moom xalaatu koo def te ba ma ko waxee sab sëriñ dana ma ah yow ak man ndax góor gu dem di wodd waaye loolu nag daa doy waar lool xolal lii mbokk mooy loo xam ni yonent yàlla Muhammad def na ko Abubakar ak Omar def ko Ibrahima def ko yonent bi alayhi salaam nee na masjidu xiif ca Mina juróom ñaar fukki yonent aj nañ sa fa makka ñoom ñëpp dañoo wodd yow nga ne góor guy wodd daa soof mi ngi noonu lii mbokk kon dañuy wan mooy ñàkk comprendre lan mooy lislaam mbokk lislaam mooy jébbalul yàlla loolee jiitu sam xel waaye jullit amul droit suñu borom yàlla digle ne def leen nii muy analyser xelam di xool ndax jaadu nag jaaduwul doo ko def suñu borom mu ne wa ma kaane li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyara min amrihim amoo droit def choix li nga war a def koy mooy ndax wér ni ne yàlla ak yonentam ñoo ko wax wér ni ne yàlla ak yonentam ñoo ko wax sami'na wa ata'na dégg nañ topp nañ borom bi nag ni déggalal al muxbitiin ñoom ñi nga xam ne dañoo suufeel yàlla toroxlul yàlla ni militaire bi toroxloo la son général d'armée loolee mbokk nu raw loolu la jurit war a toroxlul yàlla nan lañ leen di xàmmee suñu borom nee na ñii ragal yàlla toroxlul ko heure boo xamee ni ñii tudd nañ turu yàlla seen xol yi day daal di yëngu te loolu mbokk mooy mandarga jurit kan mooy yàlla mooy xaaliqu samawati wal ard kuy yàlla mooy ki la bind di la wërsëgal kii yàlla mooy ku ko bu la heure bu ko neexee mu rey la kii yàlla mooy bu ko neexee joxe ordre ñu tabbal la aljanna kii yàlla mooy bu ko neexee ñu jox joxe ordre ñu tabbal la sawara te kenn du ko jox demande d'explication faalu li ma yurit heure bu julit xelam demee ci kii xolam daal di yëngu waaye rawatina mooy jullit yu jëkk yi nga xam ne tombé wu ñu woon ak portable ak ak li nga xam ne moo ñuy intoxiqué tey boo delluwaatoon nag ci la ëpp ci ndaje jullit yi tey man ngaa dégg ñuy waaraate tudd yàlla fukki yoon ak juróom-ñett yonent yàlla ñaar fukki yoon amma buñ demee ba ne Cheikh Ousmane dënn yépp daal di yëngatu am déet loolu mbokk mooy la nga xam ni fa la seytaane yóbbu tey doomu aadama yi liy yëngal xol yi li tax nit ñi jóg di yuuxu ñenn yegg di mbëkk miir ya ndax mooy turu yàlla déedéet mooy turu keneen ku dul yàlla te loolu it la yàlla wax ida zukira allahu ishmaat zat qulubu allazina la yuminuuna bil axira wa ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshiruun bari na ci nit ñi boo dee tawxid kese nga wax seen xol daal di lemu waaye bu dee ne nag boole nga yàlla ak keneen mbig ma daal di ñëw loolu mbokk may mux bi tiin mooy njël benn jukk bi bankal sa baaraam mooy ñiy toroxlu yàlla ragal ko ñaari lu jukk bi suñu borom moo ni mooy wasaabirina ala ma asaabahum mooy ñi muñ natt yu yàlla teg seen kaw te mbokk suñu borom mi ngi wax aj makka waaye mi ngi wax jihaad ci kanam jullit yàlla da ko jaarale adduna muy kërug natt kee la ko yàlla teg mooy ñàkk gu tar kee la ko yàlla teg mooy ay sëy yu perturbé ñu koy fase gauche droite wala tas kee la ko yàlla nattoo mooy am na ay jafe-jafe ak njabootam gu tar kee la ko yàlla nattoo muy wir gu yaram la munta am loolu nag mbokk julit da koy muñ ca yàlla tax julit ñi dëgg mooy allazina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun julit mooy yaay jaamu yàlla bi nga xam ne bindoo sa bopp indiwoo sa bopp ci kaw suuf yàlla la bind tànn ña ko neex mu jur la mu indi la ci kaw suuf wër sa sa wërsëg ci loxoom la nekk sa dund ci loxoom la nekk sa wér ci loxoom la nekk lépp loo xam ne nii xéewal la gum la defal nga sant ko ci waaye bépp natt bu mu la teg nga gëm ne inna lillah ñun jaami yàlla lañu wa inna ilayhi rajiun ca ci moom la ñuy dellu mooy natt bi ma yàlla teg metti na lool waaye dinaa ko muñ ca yàlla tax heure boo ko defee suñu borom yàlla fay la ca pay yoo xam ne nii da nga doon libét yàlla defoon natt ba plus dix yaa ngi dégg ñetteelu jukka bi suñu borom mu ne mooy ñi taxawal julli ca mooy di ko def ca waxtu ba ak toroxlu ba di ko dëppale na ko sunna jàngale yii bu ci manki baaxul kii bàyyi ba waxtu yi paase muy julli la muy def baaxul kay julli di ca julli gi mu koy foye julleem baaxul soo ko dëppalewul ak sunna baaxul la nga xamee ne moom mooy mujjeel ga nag borom bi subhanahu wa taala ni la ma leen wërsëgal dañ cay jël di joxe la cay farata muy zakat gannaaw ba aq yi nga xam ne danga koo yoral jege ñaale ya ñeenti jukko yii la yonent bi alayhi salaam suñu borom ne ko bashiruhum lan la leen yonent bi di bégale mooy bégal leen ci ne yàlla dana leen gërëm yàlla dana leen tabbal aljanna yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu mi ngi noonu Cheikh Ousmane.
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور barakallahu fiikum suñu borom mu ne wal buduna mooy gilim yu mag yi jaalnaaha lakum min sha'airillah def nañ ko ñeel leen mu bokk ci màndarga yàlla yi lakum fiha xayr dana leen ca ñeel aw yiw fazkur ismallahi alayha sawaaf tudd leen turu yàlla ca giléem yooye sawaaf ñu doon ñu taxaw ci seen ñetti tànk ya fa ida wajabat junubuha bu demee ba daa di yey daa di daanu wetam ga fakulu minha lekk leen ca wa atimu alqaani aw almu'tar ca leel ca ña leen di ñaan ak ña aajowoo ca ñaanuñu kazalika saxarnaha lakum naka nii de lañ ko tàggate ñeel leen la'allakum tashkurun ngir ngeen bokk ci ñuy sant yàlla lañ yanaala allaha luxumuha wala dimaa'uha du jot mukk yàlla nag yàppam wa wala deretam ga walakin yanaaluhu taqwa minkum waaye nag dana ko jot ragal yàlla gu bawoo ci yéen kazalika saxaraha lakum naka nii la ko yàlla tàggate ñeel leen li tukabbiru allaha ala ma hadaakum ngiree ngeen màggal yàlla ci jubal gëm leen jubal wa bashiril muhsinin ngal waay bégalal ñay rafetal inna allaha yudafi'u an alladhina amanu yàlla day mooy kay défendre di jaññeel ña nga xam ne dañoo gëm inna allaha la yuhibbu kulla xawaanin kafuur yàlla day bëggul bépp workat bépp weddikat mi ngi noonu muy ab kéeféer mbokk suñu boroom day wax ci aj makka la nga xam ne mooy giléem yiñ fa daan yóbbu bokkoon na ci arab yi aada yoo xamee ne nii dañ ko def sax avant l'islam l'islam ñoo feddili ko mooy bu ñuy dem makka yóbbu ay giléem yu mag moo tax borom bi tudd ko al budun mooy yi nga xam ni dañoo am yaram mag borom bi mu ne moo ko def ci màndargay acc moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog ba muy aji téeméer la ci jiital ba mu demee moo rey juróom benn fukk ak ñett ca loxoom bu tedd ba jox Ali mu rey la nga xam ne moo ca des suñu borom mu ne bu ngeen koy rey def defal naa leen ci aw yiw lu jiitu loolu te mooy mbokk giléem ci bàyyi muy gën a am njëriñ ci kaw suuf ca la bokk bàyyi muy ëpp njëriñ ci kaw suuf mooy giléem bu la neexee war teg say bagage bu la neexee ren di lekk bu la neexee jaay def sa poos bu la neexee la nga xam ne mooy aw baar karawam nga njëriñ yi ci nekk kenn xamul lu nekk ci ci giléem suñu borom mu ne tudd leen ci turu yàlla ci taxawaayam ba ca mbokk giléem ñu tëral ko rendi ko loolu baax na doonte nam na sax borom xam-xam yu ko bañ waaye na gën nañ koy rey mooy dañ koy taxawal lem tànku càmmoñ bi léegi nag daal di ñëw dëbb paaka ci xol bi yow mi comprendrewul da nga ne ah mais lii dafa soxor waaye déedéet loolu moo gën ci moom deret jëpp day génn benn ku bu ko defee ca lay gën a gaaw a deeye kon tuddal turu yàlla su ko defee it mbokk lépp lu ñuy rendi dañ caa war a tudd turu yàlla am na borom xam-xam yu taral ba yegg ci ne boo ko fàttee midd la waaye la gën a digg doomu mooy boo ko fàttee dagan na amma boo ko fàttewul xaram na julit di ren di dara di ko lekk ca jukku ca wax bismillah xaram na nga tiim giléem di ko bojj ca waxoo bismillah fazkur ismallahi alayha sawaaf su demee nag ba daanu ba sedd su boobaa jël leen ngeen lekk ca ca mooy mbokk baa yu may xar nag giléem dagan na waaye gannaaw bañ ko reyee gannaaw bañ ko rendee kenn amul droit ñëw dagg tànku xar bi dem afra lekk fekk xar baa ngi dund lépp lu ñu daggee ci bàyyi ma fekk mi ngi dund loolu dafa médd mi ngi noonu borom bi nag subhanahu wa taala ni nii lañ leen ko defale su ngeen reyee jur gi yow suñ caam suñu borom waxul fa kuluha waxul lekk leen ko dana lekk leen ca mi ngi noonu su ko defee di ngeen cay lekk jël ca sarxe ca jël ca mi ngi noonu mayee ca bokk na lu bari ci borom xam-xam yi li ñuy firi alqaani mooy ki ñëw na laa sëñ bi may ma ci ndawal gi nga jël ko may ko waaye léegi-léegi nga gis koo xam ne ñaanul waaye xam nga ne kii de aajo woona nga yëkkati daal di cay may mul al mu'tar borom bi nee na nii laa ko tàggate ngir ngeen sant yàlla mbokk giléem nag yéen ñëpp xam ngeen yàllaa ko tàggat yàllaa ko tàggat nga gis léegi suñu àll bi benn gonek pël gu am quinze ans jiital fanweeri yëkk yoo xam ne benn yëkk bi bu bañoon rek ñun waa jàkk jëpp mënuluñ ko dara waxumaa ne giléem waaye suñu borom moo leen tàggat man ngaa tegale fii téeméeri giléem di rey par benn di rey par benn ba ñu jeex mi ngi noonu yàlla moo leen tàggat dajale téeméeri giléem suuf see bagage ñaari naar ñoo leen di jëli Niger ba Arabie Saoudite kon yàlla moo leen tàggat ngiree ñu sant yàlla ci loolu mi ngi noonu sant yàlla mu safaanoog li xew suñ jamono yi tey waa ju tiim ndawaluk borom bi dankat dankat dank ba biir bi na faaj mu jóg ne géex daa jërëjëf seen diw mi ngi noonu mbokk loolu musiba la musiba la loolu mbokk yàlla mooy xéewalam benn waay ñi ngi koy wone ci internet bi mi ngi dugg ci mbalit bi ñu tuur yàpp yi des di peel jugo yi naan xool leen lii sëñ diw rek ko am mbalitu yàpp yu mel nii xoolal ma loolu mbokk yàlla moo ñu jox jur gi ngir ñu sant ko ci jël ca la nga xam ne moom lañ aajowoo lépp luy ak yàq lépp luy ak foog suñu borom yàlla bëggat loolu laallakum tashkurun léegi nag borom bi bañ doomu aadama yi di puukarewu naan rey naa nangam rey naa nangam gis nañ ñu leen ci ba rey ni téeméeri gileem waaye suñu borom mu ne déedéet lan yanaal allaha luhumuha wala dimaauha yàlla lim soxla muy ragal yàlla ci looloo tax tabaski dana jot benn waaye dem jënd xarum soixante mille am am ko dem jënd xarum six cent mille ca tuyaabay borom soixante mille borom six cent mille du ko am lu ko waral te ba muy jënd xarum six cent mille mooy pour koñ bi yépp xam ne maa fi gën a rey xar tax amma borom soixante mille moom yàllaa tax suñu borom nag ni soxluwuma yàpp bi soxluwuma deret bi li ma soxla mooy ragal yàlla gu jóge ci yéen nii laa ko tàggate ngir ñuy màggal yàlla ci li ñu yàlla wërsëgal te it la gën booy rey am xarum tabaski wala xaru hadiyu wala giléem nga wax bismillah wallahu akbar gannaaw ba di tudd yàlla ci bisu tabaski yooyee borom bi mu ne naka noonu béggalal ñi nga xam ne fuñ toll dañuy yëg ne yàlla mi ngi leen saytu seeni wax seeni jëf dara rëcc ci yàlla loolu mooy al muhsinin di grade bi gën a kawe ci lislaam gannaaw lislaam wal iman mooy al ihsan borom bi nag bàyyi loolu lépp dellu siwaat nag ne yow julit bul tiit bul jàq yàlla mooy féete woo défendre julit te mbokk julit tawakkaltu ala allah boo ko xiste ba wax jeex na soxla woo ndomba soxla woo ay béjjën soxla woo ay cuur yàlla ngay wikku yàlla moomu mooy lay aar ca lépp loo xamee ne nii yàlla joxewu ci ndigal kenn mënu la ca lor borom bi nag ne bëggul fen warkat bëggul ab yéeféer yal na yàlla aar ñu àdduna ak alaxira ñu ngi noonu Cheikh Ousmane
قل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
barakallahu fikum suñu borom mu ne usina lillazina yuqaataluun jox nañ ndigal ñooñu nga xam ne dañ leen doon xeex bi annahum zulimu ndax ñoom day dañ leen a tooñ wa inna allaha ala nasrihim la qadir ca yàlla day ci dimbali leen ku ca am kattan la alladina uxrijuu min diyaarihim bi gayri xaq ñooñu ñu génne ci seen kër ya ci lu àndul ak dëgg illa an yaqulu rabbuna allah xanaa lu dul dañ ne rek yàlla mooy suñu boroom walawla dafu llahi naasa baaduhum bi baad bi baad bu dul woon ak yàlla mooy pousser lenn ci nit ña ca la ca des la huddimat sawaamia kon day doon nañ mabb sawaamia mooy li ñuy tuddee ay ermitage yoo xam ne labbe yi dañ ko daan beru ci àll bi wét fi di jaamu yàlla wa biyaun moom mooy jàkka ya yahud yi di daje wa salawat mooy église ya chrétiens yi di daje wa masajid moom mooy la ngeen xam mooy jàkk jurit yi yuzkaru fi hasmullahi kasira yooyu nga xam ne dañ cee tudd tudd turu yàlla lu bari wala yansuranna allahu man yansuru yàlla nag dana dimbali ku ko dimbali inna allaha la qawiyun aziz yàlla mooy borom kattan gu màgg gi ki not lépp lu mën a doon muy aziz alladina in makkannahum fi l ard daan dimbali it ña nga xam ne buñ leen dalalee ci kaw suuf jox leen pouvoir aqaamu salaa dañuy taxawal julli wa aatawu zaka dañuy joxe azaka wa amaru bil maaruf dañuy digle la nga xamee ne nii mooy ak njëkk wa nahaw anil munkar te dañuy tere la nga xamee ne nii mooy lépp lu ñu sib mi ngi noonu amaru bil maaruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur ñeel na yàlla la nga xam ne mooy mujj mbir yépp mbokk suñu boroom yonent bi alayhi salaam def na fukki at ak ñett ca makka ñuy jël jullit ñi di leen rey ci kanamam lañu rey kii di sumayya ci kanamam lañ doon mbugale amaar bam faatu ñoom bilaal ñi ngi leen doon mbugal mbugal yu tar ñoom xabbaab ak ñeneen ak ñeneen waaye suñ borom ni nit ñi ko fu ay diyakum wa aqimu sala ba benn jullit fayu benn waay day ñëw julit mën na koo yenu dóor ba ci suuf mu dajeeg moom saago ko xaax te lu ko def lépp waaye suñu borom mu ne ko foo ay dee ko bu kenn fayu te loolu moo nekkoon formation maîtriser sa bopp ba nga xamee ni nii ëllëg bu leen yàlla digalee jihad jihad bi yàlla rek a tax ñu koy def loolu ba leen yàlla jëlee ci formation boobu ba ñu réussir ca ca la taxoon mu ne fukki julit buñ taxawee téeméeri yéeféer daañ leen mën a dàq léegi nag yàlla mu ne kon ñooñu nga xam ne dañ leen doon xeex démb mën na leen bu leen fayu ñooñu nga xam ne tooñ nañu leen génn leen seen kër yi ca màkka ca amul benn fët bu ñu def lu dul ne dañ ne yàlla kese mooy suñu boroom jox naa leen ndigal nag ñoom ñu fayu ñu jihaad ca loolu mbokk moo jëkkoon nekk ndigalu jihaad jihaad boobee tey tubaab bi bëgg koo dégg donte ne ñoom ñi ngi jihad ak leur guerre ñi fekke woon dimanche passé ci loolu lañ doon def waxtaan ci wàllu fiq ba bokk na ci liñ doon wax mooy gouvernement yépp waroon nañoo encourager borom xam-xam yi ñu jàngale lan muy jihad ñàkk xam lan muy jihad looloo tax tey jafe-jafe yi am ci adduna bi yépp ñu koy tuddee Daesh di ko tuddee Boko Haram di ko tuddee lu mu mën a doon ci ay mbooloo jeune ànd yor seeni char de combat seeni mitrailleuse au lieu ñu dem ca yéeféer yi ñu dem ca seen mbokk jullit di leen rey la ko waral mooy ñàkk xam lan mooy jihad waaye bu ñu leen jàngaloon jihad dañ xam ne groupe yooyu ñuy def yépp suñu borom yàlla reconnaître la ko mbokk jihad ay charte ya muy àndal ka kay jiite mooy ab buurum réew yoo xam ni waxoon nañ ci lu bari suñ dar si dimanche ba almuhim li xew tey ngeen koy dégg ci kaw suuf du jihad fi sabilillah yi ngeen dégg yépp a tey ci kaw suuf ay xeex la yoo xam ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent c'est injuste yàlla nangoo ko am maa nag yeneen ci bekki sahaaba ñoom suñu borom jox na leen ndigal ñu jihad fayu borom bi nag ne budul woon ak ne yàlla daa jox jullit ñi ndigal ci ne buñ dalee seen kaw fayu leen kon yéefir yi dañ màbb fépp fu ñuy jaamoo yàlla da doon ay jullit a fa nekk ay chrétien fa nekk ay yawut a fa nekk te it mbokku islam même boo duggoon ci am réew mën nañ siñeenteeg ñoom pacte ci ne ngeen sax ci seen diine islam contrôler dëkk bi kenn du leen bund xotal ci dara ca mbokkit jihad fi sabilillah looloo ko doon waral islam danaan kayi lim ñu ànd jaamu yàlla ñu nekk ay doomi ndey ñu ne déet ñoo bañ dugg ñu ci diine ñu ne leen d'accord léegi kon bàyyi leen ñun ñu jiite dëkk bi ku bëgg dugg ci diine dugg ci yéen nag ngeen di joxe jizya ñu bàyyi leen ak seen jaamu yàlla su boobaa église yi nekkoon ci réewul islam boobu ñu ñu jot synagogue ya dañ naan yii dañ koy sauvegarder doonte ne nag duñ leen may ndigal ñu tabax yu bees mais yafa nekk moom dañ leen koy bàyyi borom bi kon subhanahu wa taala loolu la wax ci ni bu dul woon a jihaata fépp fu ñuy tudde yàlla dañ ko mabbo borom bi ni ne ku ko dimbali dana la dimbali mbokk dimbali yàlla fan lay jóge ndax mooy gàddu fetal dem ci toolu jihaat déedéet dimbali yàlla njëlbeen bi mooy wiital yàlla mooy wiital yàlla bañ koo bokkaale dara dimbali yàlla la ca jiitu mooy dëppoog sunna yonente bi salallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne yaa ngi jëm ca jihaad te jihaad boobee ah yàlla joxewu ci ndigal sunna digluwu ko loolu du dimbali yàlla dimbali cheytaane la te it mooy li ñuy gis tey ci lu bari ci àdduna bi borom boobu nag subhanahu wa taala ne moom day mooy ka nga xam ne mooy borom kàttan gi loolu it bépp julit boo xam ne nii la muy def def na ko ngir dimbali diine yàlla ji ci waxam ci jëfam ci alalam borom boobu subhanahu wa taala dana ko dimbali moom tamit adduna ak alaxira suñu borom yàlla subhanahu wa taala it di wax ña nga xam ne ñooy jihaad ca yàlla di leen jàppale mooy ñoo xam ne buñ jotee pouvoir la ñuy jëkk a def mooy dañuy taxawal diine yàlla ji ci kaw suuf makkannahum fil ardi aqamu sala yal na yàlla saxal lee mu wone ci Arabie saoudite moo ko bokk na lu ñu yàlla won ci sunu génération bi ñu dund ci siècle bi ak la ko jiitu tuuti mooy benn réew la ñu xam ci kaw suuf boo xam ne charte yi ñu waxtaral nañ ko fa aqamu sala mooy dina ne bu julli jotee ci dëkk Arabie saoudite ñu nodd ñu ñaax ñépp ñu dem julli bal am na al hay boo xam ne nii moo hayatul amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bokk na luñ daan def doonte ne yal na yàlla musal ñu ci dégg naa wóoruma waaye dégg naa ne loolu nekkatul farata waaye mbokk ba lu yàggul dara yéen ñi dem màkk xam ngeen buñ xisee ba nodd heure bi ñuy julli kenn amul droit di jaay am déet loolu moo xam Arabie saoudite bal da ngay dégg ko mel ne aljazairi rahimahullah daana wax ne ci jamono ju jëkk ja da ngay gis benn dëkk ci Arabie saoudite imam bi day xam mboolem waa dëkk bi julli fajar képp koo xam ne gis nañ du teewee fajar daañ la convoqué demande d'explication soo amul lay plus jàppale tëdd ci koso bi loolu mbokk mi ngi noonu taxawal julli gannaaw ba organiser zakat organiser zakat dimbali ci ña nga xam ne ñoo ko yeyoo tey jii Sénégal ana ñaati junni ci ay orphelin ñoo nekk tey Sénégal ña leen yor ñi ngi dëkk Arabie saoudite gannaaw loolu di déglu lu baax di teeru lu bon ca loolu wax naa leen ko sànq mooy benn dëkk bu ñu xam mu am police spéciale boo xam ne dañuy wër dëkk bi di xool lépp lu xaraam ñu tere ko mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñépp ñoo xam ne lii mooy seen yéene buñ jëlee pouvoir daañ taxawal julli organiser zakat ba ak ñàkk du am digle lu baax tere lu bon suñu borom mënuñu mel ni danaa leen dimbali te yàlla moo yor le dernier mot al aqibatul umur lépp lu mu bëgg loolu rek mooy li am mi ngi noonu Cheikh Ousmane jazakumullahu xayra suñu borom jalla wa ala mu ne wa in yukazibuuka su dee dañu laa weddi faqad kazabat qablahum qawmu nuuxin wa aadun wa samuud weddi woon ne jiitu leen xeetu nuux aad samud wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashaabu madiyan weddi woon na it xeetu ibrahim xeetu lut ak ñoñi madiyan fa ñu yónni woon shuayb wa kuziba muusa weddi woon nañ muusa fa amlaytu lil kafirin dama muñuloon yéeféer ya summa aqastuhum gannaaw ba ma jàpp leen fa kayfa kaane nakir naka la nekke na ma sibe na ma contre jëf ju bon jooja ñu doon def fa ka ayin min qaryatin ahlaknaha moo ana ñaar ci ay dëkk yoo xam ne alak naa leen wa hiya zalima fekk dañoo tooñoon fa hiya xaawiyatun ma nga nekk dëkk ya doon dëkk yu wéet di mabb ala urushiha ci seen puj ya mooy toiture ya féete suuf miir ya wa biirin mu'attala ak ay teen yoo xam ne dañ koo neenal kenn rootutu fa wa qasrin machid ak ay taax yoo xam ne dañ koo kaweel rëyal ko muy ay château afalam yasiru fi l ard ma ndax nit ñi doxuñu ci kaw suuf fa takuna lahum qulubun yaqiluuna biha ñoo am ay xel yoo ay xol yoo xam ne daan ci xelloo aw azanun yasma'uuna biha wala ñu am ay nopp yoo xam ne daan ci dégge fa innaha la ta'ma al absar li am kay mooy du gumba la nga xam ne mooy bët ya walakin ta'ma al qulub allati fi sudur waaye lay gumba dëgg mooy xol ya nekk ci dënn ya mi ngi noonu mbokk doomu aadama bi dafa soxla ñu koy encourager dafa soxla ñu koy muñloo dundu diine dafa jafe suñu borom nee na aksaruhum lil haqqi karihun ak foo mën a nekk ci kaw suuf bëgg a dëppoog diini xamal ne daañ la weddi daañ la saboote suñu borom di dalal xoolu yonent bi ak julit bu mu mën a doon ne nii ñu leen di weddee xeet yi fi jiitu woon yépp fii leen jaaroon commencé ci nuux ba baa nga yëgsi ci muusa mboolem xeet dañoo weddi woon suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ma jàpp leen mbugal leen te ñu yàlla mujj mujj mbugal mooy firawna ak i notable am moo tax borom bi mu ni jox na Muusa alkitab gannaaw min baadi ma ahlakna alquruna al ula ba mu ba mu alage ñu leen jiitu gannaaw ba nag la yàlla tëral jihaad jullit ñi war a jihaad mais bu dul looloo xeet yi jiitu yépp yàlla da leen alak borom bi nag ne waaw xanaa nit ñi seetlu wuñu ñaata ci ay dëkk yoo xam ne dañoo tooñeen mu alak leen tey ña nga doon mabb kenn dëkkeetu ko teen yaa nga ne kenn rootatu ko te loolu dana jaaxal sax gonañ Ndakaaru ndax gonañ Ndakaaru xamul luy teen waaye boo demoon mbokk ci àll bi waxuma da ngay gis dëkk boo xam ne dëkk bi yépp benn teen lañu am waaye léeg-léeg nga yegg foo xam ne dix village benn teen la ñuy am loolu nag kon buñ demee ba teen ba kenn taxawatu fa muy wane ne kon kenn dundatu fa ana ñaata château lañ yëkkati woon tey boo demoon Arabie saoudite wan la la waa samut doon yet ana la nga xam ni waa aat moom lañ defaroon ca iram zatil imad ana ñaata tey la firawna bàyyi fële nga xam ne mooy ca ca Égypte borom bi subhanahu wa taala nee na lii lépp day teewul man mu buggal leen xanaa nag yéefar yi nekk fii di weddi diine yonent bi di sikk sàkk ci mbugalu yàlla xanaa ñoom doxuñu ci kaw suuf ñu am xel yoo xam ne daan ci nekk di xalaati wala boog ñu am nopp yu leen di nettali la nga xam ne moo fi xewoon démb waaye suñu borom mu ne yonente yàlla bi bu sa bul am benn problème gis nga du bët yi mooy gumba lay gumba moom mooy xol yal na yàlla musal yi ci xol bu gumba te mbokk mi ngi noonu doomu aadama bi nga xam ne daa jëfandikoo xelam jëfandikoo xolam te xel mi ngi ci biir xol cerveau da koy dimbali waaye xol ca la xel nekk doomu aadama bi jëfandikoo xelam di xool ci mbindaafanu yàlla yi ko wër di xool li xewoon démb di xalaat li xew ëllëg ku mel nii fokk mu ragal yàlla déggal yàlla yàlla na yàlla boole ñu ca boole ci bépp julit wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax askar yi ñuy def ci suba mënees na koo def laata ñuy salaatu ahaka yi mënees na koo def bu demee ba guddi gi xaaj loolu fa la askarul sabaax di commencé mooy fa guddi gi xaaje ba ba tisbaar di jot fa la askarul masa di commencé doonte ne nag la gën mooy nga def ko gannaaw ba nga jullee fajar waaye fa guddi gi xaaja rek fa la azkaru sabah commencé wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah wa ala kulli xaal imam boo xam ne dafa julli ba ci déggee bi mu fàtte ne jàppul mu ne mbooloo mi bàyyi leen julli gi jàpp ma ila axiri ala kulli xaal loolu waru ko woon imam heure bu demee ba ci biir julleem mu yëg ne jàppul dafay uutal keneen ñoom même bu ñu amoon ñetti rakka benn rakka lay mottali julli ga mat ñoom seen julli baax na moom wuru faa nekk sax di leen wax naan dama jàppul ak dama am nangam moom na wuutal rek dem yoonam lii daal mooy la nga xam ne moo war imaam wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ci ngay nga am benn waaye daf koo ne damaa bëgg yóbbu la màkk waaye charte bi maanaam da koo tegal ne daal moom yóbbu bi daal xayma li xëdës bi yëpp mooy mu dem jàngal ko ñaari kaamil màkk jàngal ko ñaari kaamil madina ndax ku mel noonu mën na dem màkk ci loolu man sharia dara ko ci wax dara wala dara
da ngay dem makka soo demee nga jàngal ma ñaari kaamil makka ñaari kaamil madina la nga xamee ni nii moom la ñuy jëkk a wax ndax nit kuy dund am na droit wax moromam mu jàngal ko moom ay kaamili boppam loole mbokk gisuñu loolu fa borom xam-xam yi am ixtilaaf mooy ndax nit kuy dee mënees na koo jàngal kaamil mais pas nit kuy dund nga ne ko jàngal ma kaamil loolu daal moom mooy mbir bi su ko defee daal lu mel noonu la nga ko war a wax moo dina ne comme da nga am yéene yóbbu ma màkk yóbbu ma màkk danaa chartoog yow fu ma taxaw ci place màkk bu ma ñaanale sa bopp danaa la ñaanal loolu daal mooy la nga xam ne mooy la gën a mucc ayib ci muy dem màkk ci base def loo xam ne xamuñu ko ci sharia mooy yow deewoo yaa ngi dundale nit ki na la jàngalal kaamil moom mu am tuyaaba jàng kaamil bi loolee amul bu dee aj makka waa ji nga xam ne dara jotu ko kooki da ngay gis ne la ñuy islam wax moo di ne buy aj makka moo war a ajal boppam amma bu doon dafa am ngant moom mën naa jox nit ki ajal ko waaye nag jàngal ma kaayil ma jël tuyaaba ji loolee ci nit koy dund xamuñu layam ci lislaam wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam bismillah waaleykum salaam mbokk mi day laaj mu ne ndax bu jàppee 13 heures dana mën a julli ñaar ak wala
ndax bu jàppee 13h dana mën a julli ñaari rakka wala déet ala kulli xaal mbokk nañu xam ne 13h day varié ci at bi yépp bu dee ne dañoo gis ne tey jii horaire yi gars yi jox bu dee dañ cee d'accord ñu jàppoon ne masalan tisbaar day mi ngi jot peut-être ay 13h10 wala yu demee noonu loolee li gën mooy la jege zawal boobu moom dañuy tere ko tey naafila loolu moom dañuy tere ko tey naafila doonte ne ne nekkul loo xam ne nii lu boy la ci borom xam-xam yépp waaye bu dul looloo daal ñu xam ne 13h léeg-léeg tisbaar 13h lay jot léegi sax mu jot 13h mooy kon daal li ñuy bëgg a wax foofu mooy nit ki daal terewuñ ko mu naafila fi jant bi fenke ba baa nuñ koy waxatee muy julli tisbaar allahuma lu dul mu ragal ne heure bi jant baa ngi ci digg asamaan bi di jeng ca loolu waxtu wu néew a néew a néew la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam naam waaw ala kulli xaal ndax ndaw lu tam xarit buñ la ko mayee mbokk julit bépp julit boo rey ndawal may la te ndawal boobee gisoo ne da ko reyal ay xërëm su boobaa bu la ko mayee daga na nga lekk ko même bu dee ne da ko def ci ay occasion yoo xam ni xëy na charia joxu ci ndigal te bokk na ci loolu mooy lu mel ne tam xarit rawatina nag tam xarit bi nga xam ne ak lënt da caa am te mooy tam xarit dafa am ay xadis yu ca rot yuy wane ne togg ci ab reer dafa baax sun maam yépp ci loola tax ñu koy def doonte ne ñi jàng xam-xamu xadis xam nañ ne loolee borom xam-xamu caamil yi ñoo ko dugal ci lislaam waaye jógewul ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee daal kii day organiser gàmmoom yonente bi ak sahaabam xamuñu gàmmo kii day organiser tamxaritam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamuñu ay tamxarit waaye bu dee ne dañ la caamay lekk su boobaa am nga droit lekk te bokk na daal lu ñuy bañ mooy bépp événement boo xam ne yow da ngaa dem ba gëm ne lii bidaa la bu ci dimbali nit ngi mel ne tey ab chrétien tey jii am naa feetam may la ci d'accord man nga ko lekk mais bu jëmee ci lenn loo xam ne seen wàllu diine la amoo droit dimbali ko ci même benn nen am maa lekk gam lay jël di la may nag loolu suñu borom nee na seen lekk dagan na suba ba gën a dagan ci nga lekk kooku am maa bu dee di wax ci wàllu amaar amaar dañ ko yeew moom ak baayam yaasir ak yaayam sumayya di mbugal yaayam ba yaayam dee gannaaw ba mu ne abu jahal waa d'accord naa ci li nga wax mooy seen xërëm yi ay yàlla lañu muhammad waxul dëgg abu jahal kontaan yeewi ko mu dem ci yeneen bi alei salaam ne ko alkuna mu ne ko lu xew mu wax ko fi mu jaar mu ne ko bu delluwaatee delluwaat ca ba tax yàlla wàccee aaya ca suratu naxlu comme ni ngeen ko yàgg dégge amma papam yaasir mbugal yooyu ñu koy mbugal gannaaw ba ci la feebar ba ci la deeyee su ma yee nag moom fañ ko doon bugale la ko abu jahal bojje xeej foofu la deeyee kon is famille boobu noonu la yonente bi alayhi salaam doon ñëw di leen romb ñu leen di mbugal guddeeg bëccëg yàlla nee na ko bul xeex bul fayu lu mu daan wax sabaran ala yaasir fa inna mawidakumul janna mu ñu leen yéen famille yaasir sama dajeeg yéen mooy ci àjjana loolu it benn misaal la boo xamee ne ngalawaay famille jurit bu nekk war nañ bàyyi xel loolu ab société lu mu yàqu yàqu yàqu yàqu yéen ngeen fexe ba famille ba du du ngeen ca bokk ca lépp lu ñu xewal ci ay bidaa lu ñu xewal ci ay col yu bon lu ñu xewal ci ay folklore yu safaanoog yàlla ñu fexe ba famille bi nekk ala yaasir ngir ëllëg ñu ànd ak yonent bi tabbi aljanna yal na yàlla yombal ko ci ñun yombal ko ci bépp julit ah anam kooku xam naa li ko kii ci tafsir bi da nga ne Ammar lañ rey xam naa looloo tax Allah waaw xëy na loolu boo amee moom ja moom ak ak njuumte la Ammar kenn reyu ko Ammar moom mooy mujj ña ngi ko mujj a reyee ca Safayni mooy xeex ba amoon diggante Ali ak Mawiya ca lañ mujj rey al Ammar Ammar boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ab benn mbooloo bu beew ñoo koy nar a rey ñoo mujj rey Ammar bi ñu ko rey boobu am na jege quatre-vingt-dix ans loolu xëy na beneen histoire la xam naa li bees daal mooy jihaad boobu mu nekkut fi waaye yéen ndaw ñi ah samedi bii di ñëw la ñuy maye deret bi liste baa ngi fii kaay leen joxe seen deret ngeen suwe ci ay bakkan mi ngi noonu yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira maa ngi jégalu dafa am ñuy dem fu sori yal na yàlla may ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain